yaakaar naa tamit euh, mbër yi génn nañu wax def conférence de presse wax booy ñaa njëkk a def Gris Bordeaux tamit woote waaw ba bëri ki dem sa gisaat nañ leen ci benn plateau TFM ñoom seen sortie ak seen taxawaay boobu ñoom mbër yi nga xam ñooy ñooy bëri noo ko gisee. non dañuy dañoo sonn wax nañ dëgg dañoo sonn. dañuy hmm. dañuy yuuxu. ñëpp yuuxu nañu gaa yëpp yuuxu nañu. waaw ñu déglu leen ñoom it ñu yuuxu mais je pense que yuuxu bi nu yuuxu. Hmm. promoteur yi sax yéen la ñu yuuxul. ñoom mbër yi mbër yi promoteurs yi la que promoteurs yi ñooy la xam nga ku mel ni Mohamed Ndao tey sax ndeysaan xam nga lu may wooyee ba fii ñu toll ba bàyyi làmb bàyyi na làmb <laughs> waaw may wooyee fu ma fekk <laughs> mu nekk ma mu nekk nit ku am kóllëre ndeysaan daaw nekk na ci làmb ji ba jóge fi at mu ne hmm. xam na ne am naa xaru tabaski day jënd xaru tabaski indil ma moom Tyson moom Tyson ndeysaan mon employeur la ma mas di wooyee hmm. mais tey seetaan naa leen biig ñuy ñuy gërëm ku ne mais duñu gërëm promoteur mbër yi. Ah, ñoom de. seetaan nga leen biig. waa biig waa seetaan dégg nga leen ñu tudd promoteur man de sama tur woon fa tudd sax Tite ma fa woy. waaw Tite da way na la moom. waaw Tite moom da laa yàgg sax. waaw moom moom moo ko fàttali mais ñoom. waaw gërëm nañ fa ku gërëm nañ fa ku ne kii mi ngi nuy jàppaleeg ñoom moom moom euh, ci moom la ñu yaakaar rek kii nangam nangam ak wax lu ma tudd tur mais gërëm nañ fa ku ne. mais mbër ngir yàlla ak yonent bi su ngeen di gërëm ñun d'ailleurs dégg maa ngi dégg Modou Lo ni promoteurs yi vraiment sonn nañu parce que ñoom dañuy risqué am na ci ñoo xam ne am na nañu problème ñii topp na nañu nangu nañu seen alal et tout ça wax na dëgg mais loolu lépp su amee su suñu toogatee ci plateau nu ñuy gërëm promoteurs yi nga xam ne ñoo jël seen risque tax ba nu toog fi ñoom tey opté pour làmb di bëre ci làmb c'est pas parce que dañoo am seen doole di nit ñi am nañ fi doole am nañ fi lépp nekk mbër ci amul li noonu. waaw loolu loolu mbiru yàlla la mais delloo njukkal dafa rek baax. promoteur mënunoo gërëm président de la république mënunoo gërëm ministre ba mënunoo gërëm Youssou Ndour mënunoo gërëm keneen amul sens nan gërëm promoteur yi nan gërëm Petit mbay nan gërëm Luc Nicolaï nan gërëm Gaston nan gërëm ñoom Fallou Ndiaye ñoom Dieye ñoom Serigne moodu Niang nan gërëm ñooñu. ku ma gërëma ku ma gërëmul yëpp man am naa ngërëmal yàlla am naa ngërëmal samay waajur euh, mais nit ki su son di rayante bu nu nekk rek ni promoteur bi wéyu xaalis lay wut mais xaalis bi ñuy wut moo lay jox xaalis yow moo tax ñu mel ñoom ni nu mel ñun risques yi nu jël waaw moo tax ñoom ñu mel ni nu mel ñoom kon nan nanuy nañ delloo njukkal maanaam ñu leen di fàttaliku daal ñoom non delloo njukkal rek fàttaliku ñun yàlla fàttewuñu mais mais dafa rafet mais dafa mais dafa mais dafa rafet. waaw dafa rafet. xam nga tey li ma wax nii ne tey def ma naan jox xaru tabaski xam nga loolu. waaw loolu moom lu doy waar la. lu doy waar la. chaque année mu jox la xaru tabaski. xam na ne ñàkkoo ko. xam na ne ñàkku ma ko. Bombardier daan yenoo jën wo xam ne day nan yow. indi ko ko mbuur indil ma ko. <laughs> indil la ko. mais mais yu ay teraanga la wax wax sax teraanga la. dëgg la jërëjëf. wax teraanga la mais soo sooy gë sooy loolu nag mooy dóor di gërëm président di gërëm. ay ministre di gërëm yi directeur ak di gërëm yi nangam nangam yooyu moom mooy mooy xeetu dóor ca bàyyi ñun ñun ñëpp baal nañ doon dóor bi ah non non loolu sax defe naa gërëm nañ ko waaw waaw yooyu mooy xeetu dóor te ñun est-ce que du Youssou li mu leen waxal moo tax rek li mu ne làmb ji daa war a ubbi mais kooku ñun ñëpp ko làmb ji làmb ji dafa war a ubbi ñëpp ko Youssou Ndour mi ngi def rolam mi ngi joué rolam def na ko ci artiste yi artiste la euh. ma ngi koy def euh, kii le porteur de voix la ah def na ko mais tey ñun li ñuy def ci làmp jël dem lépp xaalis banque. waaw ñëw indi pour yaakaar ne dañu ci am dara yaakaar ne dañu bëggal réew mi. joxe avance toog. joxe avance toog mel ni baykat bi jël gerte gerteem suul ci xamul ndax dana tawam du taw. Ah, mais nga taxaw di non non mais c'est c'est damay wax ni ñii yan façon nit la ñu sax est-ce que. <laughs> kon de Gris Bordeaux président bi war na dégg loolu. Ah, sa waa ji Gris <laughs> sama doom la <laughs> te ñoom ña fa toogoon moom mais moom mooy dóorkat bu mag bi. kii <laughs> moom xam gën a yaf ci mbër yi. waaw moom ah. moom moom. suy wax it dégg naa sax muy démb nu muy wax di di menace sax. naan marche mbër marche mbër mbër du am fenn. ah fu ñu marche mbër di amee. marche fu muy amee marche xew na nan bàyyi yooyu lu ñu def démb. Ah. lu noble la lu civilisé way. taxaw wax seen bopp. Mm-hmm. ñoom li fi am gum lépp ci kaas bi ci Covid bi ñoom ñoo ci gën a def. action bu noonu. vraiment toog nañu. wax lu sensé. Mhm. kaf nañ fa reefa mhm. nekk ci plateau bi man dama ci kontaan démb ñu nekk ay adversaire ci biir bi ñëw toog kaf ree fo. et tout ça mbalakante mbalakante te même xam naa ne sax. marche mbër boobu sax ci ci kaf yi la woon rek. mais xam nga ñoom duñu def la parce xam nga nag ñoom xam doon kaf rek xam nga même giri yi ah. xam nga même lii ko dal ci sama diggante moom su démb doon tey <laughs> du ko def waaw kooku moom parce que ci biir kaf rek xam nga dafa tàmm kaf ak man ba moom na yaa kaf ko ëpp na bon et lu yàlla dogal ah yàlla dogaloon loolu bon la vie continue. mais xanaa di ko pexe doo ko seetaan noonu. mu non non pexe ku ne yaa koy wutal sa bopp moom dana wut pexe. ah yow bu ma nee pexe xëy na koo ko booleel giri bu bëri. mais dana wut pexe même su ma ko tëggul. dama ne woon Gaston Mbengue dootuma tëgg. waaw xam nga day wax rek su ma demoon yóbbu ko avance mu bëri. <laughs> mu problème. <laughs> sama waay la. sama la gisoo dem li mu doon reeloo Eumeu Sène. Eumeu moo ko doon mbala bi ñuy combat bi mu jë bëre nag Balla ba ba yi di ko jël ngir xamewut gars ah, <laughs> mu mel ni daal. loolu mm-hmm. tamit démb vraiment ñu ci félicité Pape Cheikh ak groupe Futurs Médias yëpp. parce que ah, tamit loolu ku ne xam ne ñoo war a bëre. Pape mm. Thialis tëgg. Modou Lo war a Modou Lo ak ku ne xam ne seen kujje ci lamb. ci non non on félicite vraiment euh, parce Cheikh. dem naan jéem naa ko woo sax ci guddi gi pour féliciter ko. bien sûr mais jotuma ko mais li mu def dafa am solo et puis bon affaire yi du du animosité. non non non affaire bi kaf la reer xam nga nag ñoom seen wut xaalis neex wut xaalis boo xam ne da nga ciy boole kaf di ree. waaw malgré que corpeñ yi métti na. mais kaf geeg kaf geeg yooyu aussi daf ciy baax léeg-léeg. Ah, ah. xam nga et puis ku mel ni Gris ci plateau Gris daanaka moom su bàyyee mbër sax su ko neexee dem ubbi troubu théâtre am giri da am théâtre giri naa nekk turam mën na. ji <laughs> koy théâtre non kafkat la. dafa dafa àddinaam. waaw moom moom amul stress quoi moom amul stress vraiment. kooku dama gis naa ko sax benn costume xaw ma di fecc ay feccam yu neex. ah waaw mais àddina noonu la ñoom ñëpp. ñoom ñëpp loolu oh, ah, amul benn problème. mais daa mel tamit rassembleur la ah. ku mel ni Eumeu Sène par exemple. Uh-huh. fu mu nekk kenn du xippi. waaw mooy day. noonu nga koy gisee ak timidité mu sëgg mais fu mu nekk d'ailleurs wane na ko démb ci plateau démb dèjà boo leen gisee ñoom hmm. ñëpp Modou Lo mi ñu ne du wax sax démb boo ko xoolee ca mbër yi uh-huh. dama gis ku la ci téléphoné wax la wax ju neex wax ju rafet hmm. yaa tax ma am lii yaa tax ma nekk lii yaa tax bi may am kër yaa ci jàpp bi may def lii yaa ci jàpp vraiment dellu sur ci làmb ji booba man génn ji de mais ca suñu toogee ci télévision bi mel ni ku ñaanee wax loolu li nuy wax ak promoteurs yi. en en en aparté waaw ci micro bu micro tàkkul. su su micro tàkkul. mais pourquoi duñ ko wax ba duñu tudd promoteur tudd promoteur man bu ma tudd sax mais nañ tudd promoteurs yi. parce que man li ma def man yàlla tudd na ma. li ma def ba ñëpp di ma wooyee père doy na ma sëkk. li ma def ban may woowee Don King doy na ma sëkk <laughs> loolu de moom du fay